dañ fi daje woon pour waxtaan ci dispositif bi nga xamante ne moom la ñu teg fii pour euh, euh, fagaru ci feebar bi nga xamante ne mooy infection à coronavirus nga xam ne mu ngi ci àdduna bi léegi ci loolu euh, ñun li ñu jot a def mooy d'abord bi mu tàmbalee rek ministère de la santé yónnee nañu ay documents yoo xam ne wasaare nañ ko ci personnel de santé bi muy secteur public muy secteur privé ñoom ñëpp jot nañ ci bu loolu weesoo euh, district yi jot nañu euh, agent de santé yi ci ci feebar bi pour que ñu xam exactement nan la ñuy def bu loolu weesoo tamit euh, puisque feebar bi nekkul biir Sénégal euh, te dañuy fagaru pour mu bañ a dugg wala bu duggee bu bu amee tamit ku présenté wu suñu frontière ñu xam nu ñuy def jot nañoo dem Kër Ayib ma ciy profito euh, di remercier commissaire wu Kër Ayib ci vraiment collaboration bañ fa demee waxtaan nañu euh, teg nañ fa benn dispositif ak euh, ndimbalu Croix Rouge tamit vraiment ma leen di remercier ñoom tamit teg nañ fa benn tente Croix Rouge am na ay élément Croix Rouge ak e, ay élément poste de santé Kër Ayib yu fay nekk di jël garde pour euh, di xool euh, ñi fay dugg nga xamante ne war nañ saytu seen yaram ba xam ndax euh, am na ay signes yu yu mën a tax ñu xalaat ne loolu la am déet. bi loolu weesoo tamit dem nañ pooru Kaolack bi ñu fa demee waxtaan nañ commandant waaye lim ñu xamal mooy ne bato yi balaa ñuy yegg si Kaolack dañuy njëkkee port pooru Dakar ba ñu def contrôle bi donc foofu xel mën na fa dal bu loolu weesoo tamit. tok nañu ak responsable structure sanitaire yi waxtaan ci nan lañuy def ci biir centre de santé yi isolé ben euh, xol ben euh, salle bo xamné dañ koy tek pour isolement au cas où loli def nañ ko daal di def inventaire matériel bi nga xamné ne mën nañ ko soxla bu loolu weesoo tamit jot nañu def ay communication te def nañ plan de communication boo xam ne dinañ ko continuer dérouler amul benn cas suspect bu bu bu infection à coronavirus fii ci Kaolack amul sax ay personnes contact yu ñuy suivre amul benn parce que am na dispositif bu nekk au niveau national bi nga xamante ne voyageurs yi nga xam ne dañuy jóge ci réew yi am feebar bi dugg si dañuy wax région médicale bi ak district sanitaire yi ñu di leen suivre pendant 14 jours. pour xool ndax am na ñi ngi am màndarga feebar bi am déet mais fii ci Kaolack boobu ba léegi amaguñ sax ci voyageurs yooyu benn kaa bu ñuy suivre te am na ci yeneen région yu mu am loolu moo noonu loolu mën na tax vraiment xelu askan wi dal fii ci Kaolack ne amuñu benn cas suspect